allez on se euh, euh, euh, ngeen fanaane ñu ngi leen di ñaanal bis bu neex di leen souhaiter itam une très de fu ngeen mën ci nekk àndandoo ak ñun ñu ngi nuyu nga xam ne ñu ngi ci Yeewu Leen en mode FM ci 99.4 profitez-en encore parce que à partir du 1er décembre fréquence boobule dañu koy jël def ci programme bu am solo rajo la boo xamee ni mu ngi tudd JFM et je serai parmi les animateurs qui vous accompagneront tout au long sur France mais balaa boobu ñu euh, déglu yeewu leen ci rajo bi di ko seetaan itam ci télé bi ak fu ngeen mën ci nekk Alphie cupcake chocolat au lait c'est ça. mooy Pape Cheikh comme ni nga ko waxee noonu la. tey mhm. ay cupcake la ñuy def. Mhm. yaa ko annoncé cinq ans. Ah. Mhm. bientôt Noël. ay cupcake. waaw ñu ñëw ci chocolat yi. ñëw ci beurre <laughs> ñëw ci chocolat yi Pape Cheikh. ñëw ci beurre président yi. ñëw ci douceur yi. waaw ñëw ci mais yi xam nga. waaw méngoog jamono nag. <laughs> bu tabaski jotee mu rey xar. tam xarit tubaarkàlla moo di cere laaw la cat Noël bu ñëwee mu ñëw ci ay ñoom chocolat ay chocolat ay douceur Youssou Ndiaye bi nga xamante ni bûche de Noël la koy. réew la ay rôti ah, dend farci ah dend farci ay dend farci ay bûche de Noël. ah ouais est-ce que tu connais la bouillabaisse euh, ah. si Pape Cheikh ah ouais d'accord. <laughs> <laughs> donc Pape Cheikh beneen bi nu mu tuddati caviar. caviar ah foie gras ah ouais foie foie gras. foie gras il faut yooyu yëpp ñu ñëw ci Pape Cheikh. yaa ne dans ay canard ah ay canard waaw. ay cuisse de canard ay cuisse de euh. canard. <laughs> comme on le faisait en France euh, dans notre <laughs> village euh, euh, à Marmande dans ouais, le Lot-et-Garonne ouais, ouais, hein, tu te rappelles de ça chez chez Papy tout à fait <laughs> allez cupcake cupcake cupcake au chocolat Pape Cheikh mm -hmm. donc euh, bala ñuy commencer rek démb demoon naa marché mm-hmm. doxantu marché Castor waaw marché Castor ñu ngi lay nuyu Pape Cheikh. Castor waaw toujours en plaisir boo. rombee xam nga marché yi Sénégal yëpp ñu ngi samay mbagg. waaw loolu la marché Boune marché Thiaroye marché Tilène marché Médina marché Rufisque ah, sama fief la xam naa sama doon campagne moom. Ah, ci marché yi laay campagne nga bëri nga fa ah. candidat. marché ngelaw tout ça. marché ngelaw waaw bëri nga fa bëri nga fa candidat. prix fu ñu toll. donc euh, bi ñu demee démb gis nañu ni samedi ak dimanche bi dafa euh, sëdd bu mag bi. Mhm. mooy bi ñuy ceebu jën. Mhm. sëdd waaw sëdd sëdd bu mag bi xaa dañ koy def ay tëll rek ay tëll yooyu moom ceebu jën démb sam yaa doon ceebu jën bu neex eh yooyu moom Pape Cheikh moom bëri bëri na fa moom ah. démb samedi ak dimanche yëpp remarqué nañu ko ni euh, sëdd bi waaw sëdd bi dafa tuur sinon que jën yu sew yi mhm. ñoo fa nekk yabooy mi ngi ñëw ndànk-ndànk parce que gis naa fa ay saamu téeméer ah yabooy ah waa ah. mais sinon lu ma mhm. fa lu ma fa def démb marché bi mooy légumes yi rek ay mhm. courgette concombre courgette baa ngi toll ci kilo 1000 francs laajte nañu concombre dafa wàññeeku dafa yokk courgette dafa courgette gi mi ngi génn. ah mi ngi génn d'accord mi ngi génn mi ngi ci mi ngi ci saison am. Mhm. nit ñi du ñu am idée wu courgette nu ñu koy toggee mais dinañ ci ñëw en général. di ko ah. di ko di ko wane. très bien parce que courgette quand même légume bu bu bu baax la ci ci ci yaram. ni ñu koy waxee ci wolof. ak ah, courgette moom xanaa ma laajte rek. moom mm-hmm. xanaa toujours laajteel ma rek. Mm-hmm. Euh, laajte nañu poivron tamit bu vert bi mi ngi toll ci kilo mm-hmm. bu couleur bi maanaam rouge yeeg jaune yi ngi toll ci kilo mais yooyu yëpp dafa am ay sàmm ay sàmm 200 loolu mooy avantage bi. sinon haricot moo moo parce que importé bi la am bu Maroc bi. Ah. mooy jël kilo kilo kilo 2000 nañu oignon vert kilo 1000 francs. persil tomate farci salaat yooyu yëpp dafa manqué. Mm, mm, mm. mais ba léegi mi ngi am parce que soo amee 100 francs ñu jaay la soo amee 200 ñu jaay la. ah ba tey baax na. donc légumes yooyu daal laa gis ni démb. Mhm. mi ngi mi ngi ci mi ngi ci marché bi di ñëw ndànk-ndànk. ak sëb bi tuuru waaw ak sëb bi tuuru ah. te légume mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñëw. ok par rapport ak semaine yële ñu ñu ñu mujj dem. <laughs> ceebu ceebu sëdd day kon. Euh, lii neex na. Euh, mérité nañ ko quand même euh, ci bis bi. waaw ah, hmm. ceebu sëdd. te maa añ si. nañ ko aywa aywa aywa jeex na kon tey au bi yéen ñu gis en même temps euh, recette bi ci écran bi quand même pour suñu xarit nga xamante ni ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko bëgg. non tonton Mag t'inquiète pas yóbbu naa sama bopp gauche. t'inquiète surtout pas. non non yóbbu naa sama bopp gauche cadre t'inquiète ah. <laughs> donc Pape Cheikh cupcake bi dama commencé cadre voilà. allez regardez je suis en bas de cadre. nu ñu defaree cupcake bi. il ne faut pas faire euh, tey dañu jël beurre président ak beurre euh, bocage. Euh. defuñu ci tey beurre Sofia. donc moom la ñu jël def ko def ko nii ci saladier bi def ci suukar. Mhm. donc moom laa commencé travailler. Mhm. ak tuuti essence vanille. Mhm. donc dinañ soxla nen. lu toll ci ñaar su fekkee dañu yokk mesure ñun moom tax ngay gis quatre nen yi. dinañ soxla meew bridel. dinañ soxla tuuti cacao en poudre. farine ak levure moom la ñu def ci bool bi dinañ soxla chocolat noir ak sucre glace donc chocolat bi ak sucre glace bi ak beurre bi après moom la ñuy defar crème bi nga xamante ne mooy nekk ci kaw cupcake bi mais cupcake à la base euh, pâte cake rek la waaw donc pâte cake bi moom la ñu commencé nii muy beurre bi ak suukar bi la ñu commencé travailler donc da ciy def nen yi benn par benn. n'est-ce xeetu ngatalo bu jógee Amérique. waaw bu jógee bu jógee bu jógee bu jógee Amérique. jeex na mën nga ak. kopp kopp kekk. ak euh, parfum bu bu nekk Pape donc tey dañu dañu taamu chocolat blanc. Ah. chocolat au lait du moins. donc dañ ciy def ak dañ ciy def ne ni benn par benn di mélanger rek. jël fouet manuel bi rek defar ko par donc on n'est pas obligé ñu jël waaw puisque fii dañuy temps bi dafa compté donc bi moo gën a gaaw normalement dañu ko defar comme purée c'est ça. purée waaw. Ah. wala ko defar comme purée. du nekk comme purée donc rek comme mélange wu. jaxas mélange wu keek bi ñu bi ñu am habitude di defar. nga jaxas ko foofu. donc jaxase la rek. ak mesure soo amee mesure donc dañuy jël farine bi ak levure bi ñu mélangé di ko ci def ndànk-ndànk. mën nañu jël sunu fouet bi.

jël nag suñu genre keset yi rek. pat bi dafa war a duuf wala. dafa war a yelam tuuti. Ah. du yelam carrément du ndoxee ndoxee carrément mais dafay euh, nekk ci diggante dang. war sa dang. warul yelam. ci diggante dang ak ndoxe. ci diggante dang ak ndoxe. dang ak ndoxe wala dang ak yolam. <laughs> en attendant ngay xóoyal bay sotti sa yëf xool euh, téléphone bi n'hésitez pas appeler tey le 24 novembre dans un mois euh, donc tey la ñuy door di leen euh, jox seen yu baax yoo xamee ni mën na neexal euh, seen fin d'année 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 wala 88 628 04 05 ak fu ngeen mënti nekk woote leen ndax Sénégal moom du Ndakaaru dong ñu nag xam looloo tax ñu ne euh, ñooy seetu askan wi euh, seetu Sénégal donc Tambacounda Diourbel Matam Podor Ourossogui Wuduru euh, àddina yëpp àndandoo ak ñun ci télé bile yéen rek la ñuy xaar composé leen même bu ngeen ñu jotulee téléphone mën nañoo tànn ay numéro téléphone yoo xamee ni ñu ngi woote depuis ce matin pour di leen teral enveloppe bi ñuy njëkk a bi ñuy njëkk a joxe léegi nag kan moo ci nara a daal xamaguñu en tout cas yéen rek la ñuy xaar fii ba 10 donc boo defee sa mélange ba pare. pat bi nii la war a mel. donc damay jël te ñaari partie laa koy def. donc benn bi ma jël cacao en poudre. def ci biir am cacao ma ñamal la ba xam ah. jëlal ñamal parce que man tamit damaa war a am njëriñ. ci kiisin ah, bi yow yaay ñameur. waaw ñamkat laa nag. waaw la ca ñamal ba mu neex Pape Cheikh. Hmm, saf na saf na. maa ngi def euh, cacao bi non. waaw damay def. Euh, parce que damay xaaj pat bi ñaar. Ah. donc benn bi ma coloré ko coloré ko en chocolat. beneen bi ma bàyyi ko nature nii. donc suñu paree rek dañuy remplir sunu sunu yii nga xamante ni. am na fu nekk. donc soxlawul muy fees. parce que mesure bi dafay jug. suñu paree rek enfourné Pape Cheikh bu génnee ñu bàyyi képp kii ki sedd donc bu seddee nag ñu defar glaçage bi nga xamante ne moom la ñuy nàpp ci kaw ok le temps que ngay pare rek yeah yeah yeah may defar di la wan ok I return in the plateau yeah Pape Cheikh because cupcake is a gâteau qui vient in the America yeah. so when you when you don't speak English you yeah, can débrouiller yeah, boo koy lekk nga lekk ko comme waa xam nga mujjee yeah you can <laughs> you can eat the cupcake Yeah. So comme si uh, you are in America. Yeah, yeah, normal? OK. Yeah, juste après la pub Maïmouna nous parlera uh, de droit ñi nga xamante ne ñooy ubbi seen entreprise am na ay uh, conseils yu mu ñuy jox dans quelques minutes et puis parlera de ce grand festival Gorée Diaspora Festival tonton Tidiane Camara euh, moom nag directeur exécutif bu festival boobu di am chaque année ca Gorée on parlera de ce programme parce que mu et puis fera uh, ses coups de cœur en unis États-Unis Nigeria Sénégal euh, tey di ngeen gis yu am solo euh, kii yaa ngi toog grain de sel parce que jok jok job euh, jog job jàll na ba pare et puis léegi le monde est tellement développé même les Sérères cartonnent en Angleterre pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelle Samba Sène mu ngi dëkk bu ñu naan Londres alors il est très aimé foofu noonu et pourtant c'est un Sénégalais ñun nag on a très envie de vous montrer son travail même si Sérère la c'est un artiste qui a beaucoup de talent tey di ngeen gis ci moom Yandé Codou Sène gis ci moom Simon Sen waaye di ngeen gis ci moom sax Jimi Hendrix pourquoi il est là ce matin avec sa guitare donc juste après cette page de pub on se retrouve pour la fin de suite ok see you sometime <laughs>